salaamaaleykum euh, mbokk Géejawaay salaamaaleykum ASC ECHO salaamaaleykum ASC Mbooloo ñu ngi fii tey euh, Géejawaay Info def déplacement ñëw seet si ASC mboolo seen euh, préparation ni ñu def seen finale yi maanaam su ma déggee ma ni finale yi ñaari finale la yu tegloo ñoom ak benn ASC bi nga xam ne muy ASC ECHO ECHO bi nga xamante ni équipe bu mag la quoi qu'on puisse parce que équipe bi nga xamante ne nii qualifié na finalu Coupe du Maire finale départementale et finale régionale donc nous aussi nous ñëw fii qualifié finale départementale ak finale régionale donc nous euh, euh, avons jàpp ne ñaari meilleurs ASC yi nekk ci département Guédiawaye ñoo daje ak ñaari meilleurs ASC yi nga xam ñoo nekk ci département ci euh, région bu Dakar ñoom ñoo daje donc tey Guédiawaye Info ñoo def déplacement ñoo avons fait fii entraînement xool naka la ñuy préparé seen ñaari rencontre yooyu nga xam te ne ñoom ñoom la ñuy dajal ak seen ASC e ba di e ASC nekk ñaari ASC e yi mag euh, ñu ngi taxaw fii ak seen coach Oussou ñu bàyyi mu def présentation surtout ñu ko laaj ko naka seen finale bi nga xam ne moo dox seen diggante ñoom ak ASC Eco coach ñu Info et di leen remercier seen teewaay fii ak aussi tamit liggéey bi nga xam ne yéen a koy def au niveau de Guédiawaye quoi voilà ñu ngi leen di remercier bu baax te ñu gis nañ lépp quoi. voilà course tey nga jëm ci benn final bi nga xamante ni mën nañu ñaari final sax mu nekk ñaari ASC yi nga xamante ni quoi qu'on puisse dire nekk nañ ASC yi mag fii si Guédiawaye bu ñu bind histoire gi weetu du leen si boole muy ASC Mbooloo ak ASC ECCO naka ngay préparer seen final bi nga xamante ni moo jëm samedi muy final régional bi yow ak ASC ECCO. Euh, waaw ñu ngi koy préparer sereinement ñu ngi koy préparer ak aussi tamit bu rëy ñu ngi koy préparer seen aussi ak euh, pour li xam ne moom moo nekk suñu objectif boobu ba léegi muy la gagne voilà lolu moy suñu maître mom mom lañ jital mom ci slogan boobu daal lañ koy préparer moy la gagne quoi inshallah allah. donc ngeen dajante ak ASC bi nga xamanteni tamit ci côté résultat mën nañ japp ne bokku na ci meilleur ASC nga am bokku nañ ci Dakar waxuma sa Dakar mais Sénégal parce que ku que finale euh, coupe du maire finale départemental ak finale régional donc ASC bu mag doom est ce que yéen xam ngeen ASC bi ngi di dajal. waaw waaw waaw xam nañ leen tuuti nag xaw sa xamuñu leen à 100 mais dañ lay rejoindre ci yow li nga wax. muy ASC bu mag loolu moom maanaam tey jii nii kenn mënul wax lenn lu loolu waa je pense que nag tey aussi tamit ñun loolu mooy suñu motivation li mu nekk ASC bu mag peut-être su nekkoon bekkoon beneen ASC sax motivation bi dina xaw a kii mais pour ñun tamit ñu gën a nekk ASC bu mag kon il faut ñu gañe ASC bu mag maanaam tey jii nii ñoom ASC bu mag boobu ñu nekk ñu reconnaître ko nangul leen ko moo ñu gën a motiver pour ñu gën a liggéey pour ñu gën a préparer aussi tamit xamné du yomb ku leen bëgg a gagné il faudra nga def effort bu bari daal loolu moom suñu motivation la. voilà mu nekk tamit ASC bi nga xamante ne mën nañu jàpp joué na 18 mars voire 17 mars mu encaissé deux buts. ci toute compétition confondue. donc est ce que mën nga jàpp tamit défense boobu tey ASC Mbolo am na attaquant yu mën a percer défense boobu. waaw bien sûr bien sûr am nañ ci yaakaar parce que dans la mesure que ñun bi ñu génnee suñu départemental ba régional bi yëpp suñu match yëpp dugal nañ but. te voilà suñu phase nawetaan affaire yi ñëwagul woon par benn lañ naan dugal mais lu ñuy gën di dem mi ngi gën di yokk kon ça veut que an euh, attaquant yi ñu ngi trouver seen marque aussi tamit ñu ngi gën a réaliste kon je pense que ne tamit bo voilà football la attaquant yi war nañu mën def seen liggéey comme niñ daan def war nañu mën ci dugal but ci camp yi voilà ñu gis tamit affaire mi ngi tiré en longueur donc tax na japp nañ jàpp ne joueurs yi mën nañ am fatiguement ci seen diggante parce que match yi ñu joué bari na donc est ce que loolu aussi travail ko si waaw loolu prépare nañ ko depuis le début parce que depuis le début suñu objectif mooy aller le plus loin possible voilà moo tax suñu début d' entraînement lépp li ñuy def on mélange tout parce que ñu ngi jouer ba fii macha allah benn blessé lañ am amul jour bu am excès de fatigue amul jour yëpp yooyu yëpp ñu ngi doon tenir en compte voilà ba légui aussi tamit seen gestion seen énergie ak yëpp dafa bok ci suñu liggéey bo xamanteni dañ koy dañ koy sóoraale pour au moins ñuy am chaque fois ben ben ben ben énergie dal bo xamné dinañ mëna mëna dépenser waat. donc ben question bi nga xamanteni ne ñëpp moom la ñuy laaj muy doomu geej waaye bu jëmale ko ci coach Ousou donc ñu gis né Ousou du tok ci baam loolu la ma waral. wa loolu tamit euh peut-être ben ki la woon moy euh, dama amoon licence vétéran djubo voilà bi ma amee naissance vétéran jubo aussi ñu suspendre jubo ma je pense que tamit mën ma yaakaar ne loolu topp na mën na mën na ma topp mën na porter préjudice équipe bi moo tax ma préféré nekk ci ginnaaw quoi. ñi ñuy wax ne côté mystique la da ngay gérer bi si bi mën na jàpp loolu. ah non non ah man ah, ah, ah, côté mystique voilà euh, euh, donc il donc euh, question donc répondre même dernier message donc nous déclaration Voilà, c'est mon dernier message aussi vraiment envers mes jours. Je xamante remercier parce que nous, nous donc, bon ay joueur am la ay joueur am ñoo koy nangul ñooy ànd ak moom ci philosophie am ñooy ànd ak moom ci bëgg-bëggam di ànd ak moom aussi tamit ci sacrifier pour l'intérêt de l'équipe voilà loolu nag je tenais à nga xam ne peut-être lépp lu ñu mënti def tey ji ba yegg si fii peut-être joueurs yi ñoo ko ñoo ko magnifié ñoo ko nangu moo tax affaire bi yegg si fii kon tamit mënu woon def dara sans remercier joueurs yi nga xamante ne seen disponibilité bi seen lépp yuuxu yeeg lépp ñu ngi ko doon accepté voilà ba ñu mën a yegg si fii kon aujourd'hui c'est le moment aussi tamit ñu remercier leen féliciter leen di leen encourager di aussi tamit ne leen am na fi ay jour de qualité yoo xam ne voilà yeneen secteur yëpp yeneen équipe bi voilà war nañ mën a ñëw xool si bañ xool tur yi mais qualité bi voilà am na ci écho am na ci mbooloo am na ci yeneen équipe yi nekk fii yoo xamante ni pour au moins ñu promouvoir suñu football au niveau de Guédiawaye. donc mu nekk message bu fort bi nga xam te ni lancé na ko par rapport ak ay joueurs am donc nee na liggéey bi du moom kase ay joueurs am te aussi ñu ciy bokk benn message bi nga xam moom lay moom lay jàllale aussi mooy que ni recrutement côté recrutement bi kon Guédiawaye nekk na. égorgé na ay talent yi nga xamanteni ñi ngi fii à way donc ku ñëw fi ASC Echo ñëw xol ASC mbolo aussi gis na né ñaari ASC yi mag lañ amna ay joueurs yu baax donc di lancer appel rek ñi nga xam te ci championnat première division bi deuxième division bi ñu ñëw fii ci marché bi fi ay joueurs yu baax euh, di capitaine ASC euh, Euh, mbooloo mu nekk ASC bi nga xam te ne moom mooy g finalu départemental ak finalu régional ak benn ASC mu nekk ASC ECCO donc euh, ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi fay walaay di nuyu waa Guédiawaye info bi ñëwoon seet si tey ASC bi quoi maa ngi remercier si geste bii nii defoon nañ ko zonal yàlla may ñu ndam ni ñu ko defaatee régional di ñaanal yàlla yàlla may ñu ndam quoi voilà donc ngeen teg la ñetti final euh, final départemental final régional ak final départemental ak régional bi donc naka nga gisee loolu ci côté performance waaw loolu man lu ma wax rek lépp liggéey la quoi ak groupe bi tey boo seetee li ñu exiloo fii nii solidarité nekk benn di xàccandoo di dóorandoo tey li moo ñu may ñu si fii nii quoi donc ngeen tek ben ASC e bi nga xamanteni ne e mag la ah, parce que tamit euh, finalu 4 fois ci année bi donc yombul nak ngeen gisee ASC e eco est ce que xam ngeen ASC bi ngeen joué. wa ASC bi xam nañ ko bu baax ndax yag nañu seetaan seeni match meilleur ASC fu mu toll nii la quoi ndax instant final bo séré sax ñom ñoy favori mais li ñu wa à chaque fois rek dañuy ñëw rampé li ñu mom ñu dañoo ñëw pour jël ci ko quoi. donc li ngeen mom da ngay ñëw pour jël ci est ce que paré ngeen mentalement pour dajanteeg ASC eco paré nañ mentalement pour day ku dul ASC eco sax paré nañ pour ñom est ce qu'il y a aussi du euh, côté médical est ce que du côté euh, confiance aussi équipe qui nga en train de c'est ngay ces jours est ce qu'il y a aussi des waaw sama gars moom vraiment pare nañ quoi boo seetee nii ne nga xam pare nañ nekk si ginnaaw def ambiance mm-hmm. bu newoon suba suba suba mm-hmm. yaakaar pare nañ pour mas a nekk suba quoi donc tey su benn message bi nga xam koy passé si supporter ak supporter ASC ECCO yi ak dirigeant yëpp tamit benn message la waaw ñu ñëw def fair play rek xam ne sport la quoi mm-hmm. c'est le di ñaan yàlla yàlla may ndam quoi ndax ko xam ASC ECCO xam xam si fair play lañ leen ñu ñaan yàlla ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim terminé ko alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla suñu borom defal ñu ndam bu seddu si kaw gi ay sa eegu voilà benn question bi nga xam moom laa lay posé rek gis nañ ne grand gardien bu mag nga fii géej pour dem ci championnat yi pour jouer ji waaw instant yi nii am naa ay club am naa ay club a a ñëw nii quoi amoon naa benn club bu ma demoon semaine bi fa laa nekkoon ñëw préparé si final bi quoi après damay delluwaat awlu ah, lu wax rek affaire moom lu jot yomb quoi affaire du talent du dara mais lépp suñu loxo suñu borom lañ ko bàyyi rek. voilà donc waxoon naa ko ci journal bi ah waxaat ko ci départemental wax ko ci régional bi donc nekk na un très bon gardien bi nga xam te ne fii Guédiawaye mënuñu tudd 4 wala 3 gardiens buñ ko ci boole donc mu nekk un très grand gardien donc wax ji leer na rafet na donc di leen souhaiter bonne chance ci final bi nga xam te ne jëm nañ fa samedi ñoom ak waa ECHO. Abdoulaye Diop nekk ci kenn ci dirigeant ASC Mbolo donc ñu ñëwoon fii euh, Guédiawaye F1 def déplacement ñëw seet si leen xool naka la ñuy préparer seen final bi nga xamante ne mooy final régional bi dox seen diggante ñoom ak ECHO fële ca stade Alassane Djigo muy samedi donc Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. waaw ñu leen di fay et puis di rafet seen teelawaay quoi depuis début tournoi yi gis nañ seen taxawaay waaw ñu ngi fay ñëpp quoi di fay waa AIC bi yëpp dirigeants yi tout le monde supporters yi et tout. ñu ngi leen di fay. donc ngeen jëm euh, samedi ci benn final bi nga xam te ne waa ASC ECHO la donc est-ce que mën nañ jàpp ne ci côté finance équipe bi pare na. waaw comme rek li ñuy wax rek côté finance moom mënuñoo wax ni mais dañuy sant yàlla quoi. ni sant yàlla bu baax et di wax euh, ASC bi ñuy dajal aussi tamit di leen remercier et puis di leen encourager parce que football moom c'est pour euh, réunir quoi pas pour diviser et gis nañ ñoom tam et puis parcours yi ñu doon daje pratiquement ñoo doon bokk journée ñoom suñ njëkkee joué dañuy taxaw di ñu supporter après di ñu encouragé naan ñu ndam li na jëm géejawaay de même que nous quoi ñun tamit noonu lañ ko doon jàppeek ñoom kon defe naa feet fête la quoi. voilà mu nekk final bi nga xam te ne final régional la samedi mu nekk 100 pour cent géejawaay donc yow loolu aussi noo ko gisee. waaw 100 pour cent géejawaay soo ko gisee rek day wane ni que xale géejawaay toujours ñu ngi ci forme ñu ngi ci football depuis sport toujours ñu ngi dem comme il faut waaw li des mooy xam rek gars yi jàppale leen et puis pratiquement boo xoolee géejawaay terrain yi fi amoon yëpp wàññeeku na. loolu tam di ci profité di wax occasion maire bi su fekkee euh, mën nañu taxaw parce que tam boo xoolee même ASC bi terrain bi mu doon entraîné mënatu fa entraîné et puis yeneen ASC yëpp aussi perte nañ seen terrain. Mbooloo bu ñu xoolee premier masam bi mu njëkk a gérer nawetaan ak deuxième masam kenn du ko xalaatu ko ne dina yegg si fii donc nit ñi dañu doon douté naan ASC bi baax na ak baaxul donc mu ñëw finalu trois fois zonal départemental régional la mooy secret bi. ah secret lenn la woon rek lépp dañ ko doon waxtaan ak booy nan leen euh, loo gis discipline la rek. tey bu ñu demee ba egsi fii discipline moo ñu ko may ak suñu nangoo liggéey quoi ensuite nangoo nekk benn loolu dong la du leneen parce que boo xoolee ay seen mbooloo ñëpp la ñu yaatal ku ñëw am conseil boo waxee dañ lay déglu et booy dañu discipline nangoo joxew à fond comme il faut waaw loolu rek la secret bi. dégg aussi ñu leen di jëwee ne boo xoolee amul amul dirigeant bon ñëpp ay dirigeant lañ est-ce nga ko confirmer. waaw boo déggee gars yi wax naan ASC bi amul dirigeant pratiquement boo xoolee dirigeant yi ak joueurs yi ñoom ñoo tolloo. ñoom ñëpp même âge bi la même niveau bi la mais teewul suñu grand am na ñoo xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw des fois dañuy dem nemmeeku leen ku mel ni grand Cheikh Faye ay ñoom Cheikh Fall bu ñu ay idées yu ñu soxla dañuy dem ay ñoom grand Mbaye Diallo ainsi de suite boo limee da ngay juum waaw mais bu ñu nee ay seen mbooloo amul dirigeant loolu pour wax pour kii la rek mais am nañ dirigeant xeebuñu suñu dirigeant yi bien que ay jeunes la ñu ñoom ak joueurs ñoo tolloo waaw am nga xam te moom ngay passé ASC ECHO ngi lay seetaan tey ban message waaw di leen wax rek ASC mbooloo man noonu laa leen gisee quoi parce que dañu fair play et si ñun tam dañu fair play comme li ma la wax rek ci début bi tournoi yi dañ doon bokk même journée mais ñoom dañuy ñëw ba ci ñun après match su fekkee ñoom ñoo jëkk a joué dañuy ñëw ci ñun di ñu wax nañu gars yi na ndam li ñëw géejawaay na ndam li ñëw géejawaay waaw kon defe naa ne loolu fête la fet bu neex lay doon parce que ñoom dañoo fair play ñun ñu fair play beneen bi rek bi am bi ñu bi ñu xaw a métti lu mooy final bi fi ñu ko bëgg a yóbbu arrangé wul suñu supporter arrangé wul supporter écoute surtout que ñun ñëpp fii lañ dëkk parce que boo xoolee bu ñu naree yóbbu ba mbaaw dañuy yokk supporter yi yokk joueurs yi coono loolu yëpp ay ay ay euh, maanaam ni ma ko gisee man si man euh, du lu lu rafet quoi du lu rafet suñu sañoon ñu jouer Amadou bari au moins pour supporters yi ñaari ASC yëpp mën a ñëw quoi assister. waaw mais ñu ngi koy souhaité final bi ñu passé ko ci jàmm waaw yàlla defal ñu jàmm yéen itam ñu ngi leen di remercier parce que gis nañ seen taxawaay liggéey bi et dañuy dugg ci net bi di gis seen taxawaay ci journaux yi et tout ça. di wax encourager quoi. voilà merci mu nekkoon euh, Ablaye Dieng kenn ci dirigeant ASC mbolo bi ñewon seet leen fii seen euh, entraînement donc ñuy rafetlu vraiment cadre yi ah, ak aussi ñaxtu bi nga xam mu ngi koy ñaxtu donc mu nekk ñaari ASC nga xam te géejawaay lañ dëkk mu nekk 100 pour cent donc ñu doon ñaan yalla ñu indil ko Amadou Bari mu nekk euh, une fête pour la jeunesse de géejawaay mais malheureusement yóbbu nañ ko Alassane Djigo donc xam dafa ki mais Alassane Djigo lañ ko yóbbu mais donc di leen souhaité bonne chance rek muy Alassane Djigo muy géejawaay ben la c'est la banlieue donc bonne chance à deux ans sànq ci ASC mbolo donc ñu ngi fi tey

waaw dool ñu ngi leen di ziar wér di leen di rafetlu seen liggéey wax dëgg yàlla yéen a ngi wane li ngeen war a wane quoi donc bi ñu doolee sant yàlla man je m'appelle Ibrahima Fall ñu ma woowee Janvion man maay entraîneur ECCO quoi comme ni nga ko waxee rek euh, yaakaar naa ni ñaari équipe yëpp mérité nañ fi ñu dem parce que bu ñu demee demi demi finale régional demaat finale départementale ça prouve que ni ñaari équipe yëpp liggée ni finale nag dafa nekk loo xam ne affaire expérience la parce que ñun jàll nañ ci benn ñu nag méngoo comme niñ ko waxoon ñepp joxoon favori mais gis ngeen numu démé donc lolu taxna tamit tay gi boo ñëwee sa entraînement bi da ngay gis ni ñepp dañ ko défé à la à à à la calme parce que tamit dama nan mëno jël coupe te joué ko donc lolu lañ remarque dañ ñëw gis fi amul engouement biñ fi ñëwon fekk ko fi ak ci côté joueur ak ci côté euh moy supporter yi gis nañ aussi staff dafa xaw a manqué ak joueur lolu lan moo waral est ce que du joueur ñoo sonn wala numu démé non wa dafa am joueur yo xam dama leen jox repos quoi parce que dañ dañ xaw sonn parce que bo xolé 6 mois ba lay ñi entraîner te ñenn ñi dañuy yor dañuy compétir ci club yi ñëwaat fi ngoon donc ma def alternance boobu xaw a bàyyi ñenn ñu noppalu yeneen dirigeants yi dañu nekk ci ay ay quelques bagages yi rek mais liñ fi fekkoon rek moo fi nekkaat quoi mais seulement bii waa dañu ko def à l'ombre ci dañu feetu te commencé guñ te gañ jéeguñu match bi donc loolu expérience bu ñu jàng la moo tax ñu ne ren ah, comme ñëwaat nañ final nañ def lépp en douze ba pare su yàlla defee ñu gagné incha allah ñu a def lu ñu mën a def def ko quoi. final départemental régional bi ak final zonal. lool nga mëna waxé lool la moy mooy secret. waaw mais sante yalla rek moy li ma wax quoi dama nan dama nan équipe bi mom xam nga équipe mom tank mi nga am ay joueurs yo xamni tout le monde se da fay permettre sa ligue gëna yombu te moy li wax une grande équipe man jaar naa ASC yu bëri wax deug yalla dem na fa zonal dem départemental dem mais nima ma ni ma dundee bi musuma ko dundé ci nawet. côté organisation wala. organisation côté supporter côté côté ni ñuy gérer yi vraiment affaire le bu rëy ci man quoi. donc beneen expérience bi ma dund parce que man ñaar sel laa dëkk mais bi ma ñëwee fii ba gis naa ne ECHO c' équipe te di wax ni na ñëpp ñëw di inspiré ci waa ECHO ci waa ci waa ni ñuy defee nawetaan parce que am na solo quoi. violence bu bëriwul xam nga te vraiment am na jeu niveau bu jóg na ba pare secret ECHO mooy logiquement bu ñu dañuy wax dëgg boo amee trois internationaux yoo xam ne ay anciens internationaux yoo xam dañu nekk ci équipe bi mais am na am na Pascal. Pascal Mendy xam nga Jean Black bi xam ne récemment mi ngi jógee Coupe xam nga Pape xam nga Ron Laye xam ne nekkoon na Cameroun demoon xam nga am na Sidia boo xam ne demoon na Lorient yoo xam ne du man maa leen ko fekk rek di pousse tout rek pour ñoom ñu dem quoi. Euh, nga gis ne joué nañ plus de 17 voire 18 matchs yoo xamante ne nii. ñëpp jàppoon nañu école su encaissé donc ñi naan xon la ñi naan défense bee baax booy man len attendez-vous bala ma xam ne ECCO équipe mag la rek ñu duggal ñu bi wala ñu encaissé bi ci lay xam ba xam ñu ECCO équipe mag la parce que bo xoolee ñun ñoo jiital kenn suñu jital même aussi passé ñun ñoy jital mais bi gars duggal 2-0 gis nga ni ñi ni commencé paniquer football lool la dafa am victoire am défaite am nul mais li ma mën wax dal du affaire xon affaire la boo xam liggéey moy li ma wax ay joueurs yo xam ne joueurs yu am expérience la yo xam ne nañ ñëw tam plus de 10 ans donc ñoñu expérience bi ñuy am des fois du doon man ñoom la ñoo ci ñoo koy def moo gis ak keroog ñu encaissé rek da nga ñu mer man leen mer mun leen di dugal nit seen camp te bugg leen dugal seen camp donc loolu baax na sax ci avant final dina permettre ñu xam ni cas dara nekk fii donc ren après ngay joué euh, benn final bi nga xam te ne dimanche la. final régional yow ak ASC euh, Mbooloo. Hmm. ngeen dajee final départemental ak final régional hmm. est-ce que même préparation yi préparation lay nekk même préparation lay nekk parce que xam mooy mooy li wax ñaari équipe yi xamante la bu hmm. bokk la équipe boo xam ne département bi la jógee kii jógee département bi ñun xamante nañ bu baax te naa ne c'est xam ne il joue nañ li ñuy def quoi dama naan loolu ndamu géejuwaay la quoi bu ñaari équipe yi demee régional final régional final loolu ndamu géejuwaay la ku ci këyit que gañ te yaakaar naa ñu ñaan naa yàlla comme ñàkkoon nañ bee ñu jëm ci am ñaar au moins coupe du maire bi wala non euh, régional be ak départemental bi waaw ñu jël ko quoi. voilà sànq dama laaj coach su ASC mbooloo bi. Mm. donc mu ne xam na leen bu baax a baax a baax a baax parce que match bi passé toog na joué leen ak bii réaction aussi bu jëlul bii. Mm. donc nee na xam na leen bu baax a baax yow est ce que yow xam nga équipe bi ngeen di mbooloo. waaw man leen seetaan naa leen deux fois bu ma fenn. Euh, jamono ak contre bi passé quoi. mais mooy li ma wax rek xam nga chaque jour physionomie yi day changé. day changé mën nga ñëw final mooy li mhm. final ñu bëri contre Mengo ñëpp dañu joxoon Mengo éco euh, euh, favori mais gis nga bu ñu ñëwee match bi ni mu demee. Mhm. donc loolu jàngat bi ma ci am. Mhm. kon moom mooy li ma wax ñu xam tey suba ñëw mënuñu bañ xam comme ñun mun nañ ko xam tey suba ñëw bañ ko xam donc li tant que demuñu ba ci cappaandaw ga rek man jàpp naa ni leneen mun na fay xew loo bokkul ak xamante quoi. donc est ce que mën nañu jàpp ne tamit ci di samedi daal équipe bi complet comme d' waaw incha allah dafa ñoo xam dañuy siy ci comp dañuy dem ci compétition yi nii moo tax mu demee nii mais incha ñoom ñëpp suba ñoom ñëpp dinañ ñëw quoi dinañ ñëw. donc mu newoon ben question yi nga xamante ne doon ko laaj coach bi donc mu nekk un très grand coach hein, parce que tamit euh, yombul nga ñew fekk ben équipe boo nga xamante def nga fi liguey bu am solo donc nga final coupe du maire final coupe départementale zonale ak euh, final régional donc mën nañ jàpp ne les deux meilleures équipes yi nga xam ñoo nekk ci région de Dakar donc ECO si la bokk donc mu nok liguey bi nga xam def na à la base donc diko di len souhaité bonne chance aussi diko ko souhaité bonne chance aussi diko encourager ci liguey bi nga xamante gis nañu centré nañ ko mi ngi def fii si ASC e ECO donc bonne chance pour samedi si ñaari ASC e yëpp donc fête la hein. ki ñaari équipe géejawaay la ñuy souhaité ñaari équipe que le meilleur gagne. ci yokk benn affaire rek comme li ma waxoon bee passé man violence moom dama koy bañ quoi parce que vraiment day yàq quoi te période bi ñu toll nii comme la neetaan ah, xëy na côté Dakar xëy noonu mais gis nga fii vraiment affaire bi yegsi nañ ba fii te amul benn problème donc di ñaan yàlla ñaari équipe yëpp ñu ñëw fair play que le meilleur gis nga man boo fekkee fii maag booy bu ñu la waxul coach baa ngi ñëpp. benn lañ quoi équipe géejuwaay lañ ku ci gagné rek ñu xam ne yaa gagné ñu bañ a xeex bañ a xuloo kenn bañ ci gaañu yàlla defal ñëpp jàmb ba samedi yàlla defal ñu jël coupe bu neexee donc message boobu leer na donc leen ci ca stade Alassane Eco ak ASC euh, euh, Mbolo donc ñu souhaité ñaari ASC euh, capitaine Eco mu nekk ASC bi nga xam te ni comme li ñu ko rek nekk na ASC bi nga xam te ni tamit samedi ñoom ñooy jouer seen finale régional ñoom ak ASC Mengo donc ñu fàttali tamit aussi ñu ngi joué beneen final mi final départemental ak a ASC mi euh, ASC Mbooloo donc euh, Djibi ñu ngi lay nuyu nga def benn présentation après ñu ci question yi. waaw maa leen di fay maa leen di sant di leen gërëm seen teewaay fii nii. waaw dëgg la ngi préparé dem ci benn final boo xam ne defe naa ne final bu yóbbu. parce que ñoom lu ñu def ñoom lu ñu def ñoom moom lañ def quoi ñoom dañoo rëñee ñun tamit dañoo rëñee instant bi nag ñu ñaari mairie yee tase defe a dem jëli lu ñu moom pour indil ko waa quartier bi quoi parce que nañ ci. defe naa ne 2015 moom lañ pertoon mu nekk bor boo ne moom la ñu war a fay waa ASC bi donc ñu xar suñu tànk tubay pour dem jëli moom indi ko waa quartier bi quoi. waaw ngeen di préparé match bi nga xam bu mag la aussi moom it. waaw dëgg la ASC bu mag la defe naa ne moom ba muy sosu ñun sosuwuñu mais ñun defe naa ne fii lu fi nekk jarul ñuy dem feneen di ko laajte parce ñëpp teg nañ seen bët. fii am nañ ay buree talant mi ngi fi ñu ngi préparé euh, ak coach Jean Vion coach boo xam ne euh, defe naa ne ku ko xamul moom dégg nga ko parce que coach bi moom amul ay xaar ma yàlla moom amul ay ma dem te ñëw moom dafa lu mu lu mu gëm mooy trophée parce que instant bi nii nii entraînement boo gisee mu ñuy teg lu métti euh, bu ñu joué ba léegi nii lundi lañ joué mardi rek la ñu may repos ñu commencé waat ñëwaat ci entraînement yi pour préparer dem ci final bi. instant yi moyetuñ dara parce lu ñu moom la war a jëli quoi. dañu gis dañu gis aussi équipe bi mi ngi monté en puissance premier ak match yi mujj bokkul donc loolu moo koy waral. waaw dëgg la équipe bi monté en puissance. Mhm. dëgg nawetaan moo deme noonu. championnat bu commencé day jékki-jékki effectif bi du lase. Mhm. parce ñun effectif bu ñu am defe naa ne kenn laam-laame ko. Mhm. Euh, am nañu effectif bu bari bu baax. koo teg day joué. mais championnat bi moo ñu xaw a empêché tuuti moo tax. équipe bi monté en puissance dem ma si tegaloo tamit xam nga joueurs dañuy sonn moo tax euh, ñu doon ñu doon ñu doon ñu doon ñu doon demee noonu quoi mais. léegi est-ce que ASC bi ngeen di dajanteel euh, samedi est-ce que xam ngeen ko baax muy ASC mbooloo. waaw ASC defe naa ne ñun ñun soxlawuñu xam benn ASC parce que ñun lu ñu lu ñu lu ñu xam lu ñu lu ñu am lañ xam quoi. Mhm. parce que ñun defe naa ne bu dee football bu dee tactique bu dee technique tamit fii la fekk baax dëgg la seetaan nañ si tuuti mais euh, ñun. du ñu nekk naan ASC bi nii lay def wala nii ñun dañuy ñëw lu suñu ko soit bu ñu teg respect bu ñu tegloo moom la ñuy respecté mm-hmm. bu ñu demee mun a am lu ñu mun mun mun a noonu la loolu mooy sunu sunu sunu galaaj pour pour bu pour bu ñu demee mun a mun a mun a gagné quoi. donc ngeen joué plus de 17 matchs ñëpp jàpp ne écho du jël bii ñi naan côté xoola ñi naan défense bee baax yow en tant que joueur loolu noo ko gisee. non defe naa ni mm-hmm. loolu ay wax la rek defe naa ne ay gàll bu dee galaaj moom amul benn sëriñ bu la mun a assuré le camp mm-hmm. loolu moom amul. quand retiré Serigne du ko te defe naa ne défense moo baax balaa ñuy wax Serigne dañuy wax qualité défense bu ñu yor. bu ñu waxee euh, de commencé ci góol bi Pape Samba. Euh, Mbacké Jean Blek Djibi Diouf man mii. Pascal Pape Meng ñooñu au niveau lañ. dañoo joué au niveau ba tas. Mm-hmm. kon defe naa ne ay attaquant nawetaan waru leen jaaxal. Mm-hmm. moo tax gars naan ay kii mais suñu défense moo baax. donc yéen demi finale bi ñaari bii ngeen jël psychologiquement est ce que travail wu leen. non si dëgg la psychologiquement ñun duñ travail parce que gérer nañ match bu mm-hmm. nañ ay une minute de la fin ñu dugal ñu bii mais loolu mënuñu travail psychologiquement parce que. Euh, fii ay joueurs am mental la fi nekk. defe naa ne Euh, que ñun à chaque fois bu ñuy jouer dañuy sorale lool bu ñu jëlee bii nan la ñuy réaliser bu ñu bu ñu bu ñu jëlul bii tamit nan la ñuy réaliser. voilà donc tey boo am benn message bi nga xam moom ngay passé ASC mbooloo ñu ngi di leen seetaan tey ban message lay nekk. waaw mbooloo dama leen woo ci fair play rek. Mm-hmm. ñu jouer ko ci jàmm ak salaam defe naa ni ñoom ñun bu ñu demee fee Pikine doon jouer. ñun bu ñu njëkkee jouer bu ñu paree ñoom dañuy supporter ñun tamit ñoom tamit bu ñu njëkkee jouer bu ñu paree dañ leen dañ leen di supporter woo ci fair play ñu jouer ko si jàmm incha allah ngeen baay nag ñu jël coupe bi kooku jël ngeen zonal quoi ngeen ñu jël régional bi rek donc mu nekkoon message bi nga xam te ni passé na ko ci ASC mboolo mu nekk ñaari ASC yu mag ah, ñaari ASC yu mag parce que tamit yombul ñu nekk boole ci ñaari mairie yi nga xam te ñoo nekk ci région de Dakar donc ñom ñaar ñu wara a jouer final régional feulé ci Alassane Djigo samedi mu nekk final bi nga xam dafa am double enjeu ku ci nekk champion bi ak kenn ki nga xam te moy représenter pour la région de Dakar feulé ci phase nationale yi nga xam te ñu koy amee feulé ce logo donc ñuy souhaiter ñaari ASC rek voilà ñu ngi fii ak euh, El Hadj Samb nekk kenn ci dirigeant ASC ECO donc comme li koy xone sank rek mu nekk euh, ASC bi nga xam te ne ASC bu mag la duñu ko présenté waat fii si Guédiawaye donc palmarès am rek woné nañ ASC bu mag la parce que benn saison ko qualifié fi 4 fois finale yu successives finale Coupe du Maire, finale euh, régionale, finale départementale, finale euh, zonale. Donc, n'importe quelle équipe m'a faire. Donc, nous sommes ici avec ce qu'on dirigeants. Comme nous avons fait le sang, qui ASC Mbolo, nous avons fait dirigeants. Donc, aussi, il faut nous faire dirigeants. Là, il y a quelques questions qui ont été ni Warna à une finale, nous avons joué le dimanche ASC avec ASC Mbolo. Donc, nous les euh, dirigeants. Wow, nous avons failli. Bon, voilà, nous commencer, de me vérifier tout. Mm-hmm. En fait, juste plus de joueurs vétérans. Mm mais ben, bon bon des dirigeants, peut être ni nekk ci ou, bon il y a jël casquette mais sinon ils mhm. sont plus autorisés à parler à ma place. mais cependant li 10 voilà ben dynamique la bu nekk ci quartier voilà avant tout folle euh, et donc final nous prenons un jour de fête le jour de fair play mais surtout jour bo xamné bi ku nek da ngay ñew pour euh, faire revivre un peu l'esprit même des nawetane mhm. moy foore ku yalla may ndam nga dem té yaakaar naa da yalla dé ko may ndam mhm. ndax euh, équipe bi taxawna euh tout ce qui tourne autour de l'équipe aussi donc euh, voilà mm, ñëpp ñi def ku nek la ku nek sa boor li nga wara def rek ngay def mhm. donc joueur yi xam nañu ce que le quartier attend d'eux donc ñom ñu ngi gor gorlu donc booy euh, si centrement yi métti nga xamni vraiment voilà zonal bi rëcc na mais li ci dess je crois que ECHO moy rus baye gars yi sinon yëpp lañuy jël quoi. te yëpp la jël inchallah allah sama biir wax sank néna équipe bi nga xam te na quatre coupe ci saison bi. donc lolu lan lañ manam ban liggéey ngeen def pour arriver à ce niveau stade bobu en fait euh, dar du improvisation lo gis rek euh, liggéey le quoi. Mm. c'est-à-dire que nit ki lu mu sam lu mu sam rek mm. lay gisaat tey boo gisee garab boko sampé sampee ñi délé ñenn ñi jóg c'est parce que soxat bi da ci am solo et donc boo gisee c'est tout un ensemble muy joueur muy dirigeant muy vétéran muy supporter ku nekk fa nga nekk il y def mu nek ben approche systémique pour xam bi donc bu machine bi tourner rek ñep dañu tourner et donc li indi da koy gis bo murs yi nga c'est pas les joueurs qui ont fait ça mais supporters yi ñu ngi ci dirigeants yi ñu ngi ci euh, mais footballeurs yi sen aussi Donc, xam ce que les gens attendent de donc ñom ñoo ligue hein c'est-à-dire que le travail ne ment pas c'est-à-dire que ku nek li nga def rek faut ngay yegg en fait et donc li du en fait c'est juste une consécration par rapport à un long processus de travail qui a donné ses fruits et qui fait effectivement écho mu nekk fi Ça nekk tey Sathioukan c'est quelque chose qu'il a travaillé en fait. donc ngeen jëm ci benn final bi nga xam yéen ak ASC donc mu nekk ñaari meilleur ASC yi nga xam ci département parce que fit ñoo qualifié finale départemental nek aussi ñaari meilleur ASC nga xam ñoo nekk ci région de Dakar kenn war ci pour représenter la région de Dakar pour phase nationale feul sa Louga donc yow naka gisee finale 100 pour bobu. Wa non au delà de 100 pour il y a le meilleur est le meilleur du meilleur. Et je pense que Echo est le meilleur du meilleur. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, valablement et légitimement, donc, man, on m'a dit, si qui ça, que, euh, national, et que moi, dal. Voilà, lol. Parce que aussi, bien, bahna, très bien, bahna, mais meilleur, moi, gante, nous, meilleur, le Donc, nous, le temps il faut tirer en longueur, parce que, y a autre. Donc, est-ce que toi aussi, tu côté finance aussi, équipe, en place? vous savez toute association qui draine des foules a besoin des euh, finances. mais c'est dommage en fait parce que euh, ASC Économie draine des personne personne déjà c'est une manque financière incommensurable au niveau de la zone c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui niveau aussi il faut que les le comité directeur la zone euh, euh toutes les infrastructures fêtières, qui ont été intervenir ci soulager les associations pourquoi en quoi faisant ils développent des phénomènes de sponsoring mais nous bàyyi équipe bi di len jox ay moyens yo xamni ñom dañ di parce que au delà de la fête yoo xam ne quartier bi la fête aussi zone en zone bi la mais il faut pas que les acteurs souffrent faut football souffrir alors que ceux qui sont dans l'ombre aussi en bénéficient plus que ceux qui sont sur le terrain je crois qu'aujourd'hui il faut redistribuer euh, les intrants ou bien les dividendes même qui des dans mu delu ci équipe ñu koy yek parce que ben regroupement rek ça peut te coûter toute ta caisse en fait

Nous, avons une ambiance de fête nous avons wan côté festif côté culturel parce qu'on dit association sportive et culturelle au-delà du côté sport il y a la culture mais la culture c'est un ensemble d'éléments qui va des qui va des valeurs une euh, bonne façon d'être etc. je pense que les pratiques qui ont ak parce que fair play dina am voilà enjeu mais un mais jeu, nous dépasser le côté humain et les valeurs humaines et tout se retournera par nous-mêmes et autour des hommes et cetera li ñuy wax rek nañ def play jam, pas dem gars yi voilà ñu fait après éco jël ko bi ñu quoi. ñibbisi voilà donc mu un message bu bu jàll ba wax na donc tamit quoi que nekk na ñaari ASC comme ni ko wax rek ñaari ASC yu mag fii si Guédiawaye donc départemental finalu si. Euh, finaliste régional donc c'est pas donné à n'importe quelle équipe donc ñu ngi souhaiter bonne chance ñaari équipe et que la meilleure équipe gagne merci beaucoup